قبلت ذكرا جاءني من ربي وللجنان قادني بالحب قبلت ذكرا جاءني من ربي وللجنان قادني بالحب بركة القرآن حالت بيني وبين كل ضرر وحين لم ينحني ما يدخل النيران ولا لياد يوجب القصران توفيق من ليس له كفا أحد لغير نهوي ضب كل من جهد وجهت كلي للإله والرسول مع الكتاب ووجدت خير رسول ورج لخير جهة القهار صون هواه ليل ونهار dama xaati li xayaati llahi yàlla yàlla yàlla bu baax yàlla yàlla jërëjëf jërëjëf noo ko bokk noo ko bokk noo ko bokk waaw. jërëjëf jërëjëf. waaw jàmm ngeen. jàmm rek Bakk. Bakk Bakk. maa ngi jégalu maa ngi jégalu maa neew ci ndox yi rek. maa neew ci ndox yi rek. jërëjëf jërëjëf nag jërëjëf na ngeen sant yàlla baax na ah yàlla yàlla sant yéen sant yéen yéen sant yéen ci yéen bu baax alhamdulilah noonu li sax nga ñaanal ma ko tax moom li muy wax li muy wax mooy toolu ci moom mooy sax la ko xool la ko ci moom loo koy ñaanal ah ndox waaw koy ci door moom moo ñaanal ko alhamdulilah jërëjëf حبي له وللرسول والكتاب عدم عمري من أدم ومن عتاب محمد صلى عليه الله مسلما كشف لي علاه دلني الله على محمد وخادني محمد للسمد دلني الله على محمد وخادني محمد للسمد دلني الله على محمد وقادني محمد للسمد لم يخف كوني قليلا حبا لله والرسول لن أصبا لم ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو ذو حدد أنين أو لم ينحني من لا يرى بتائب wekkutu bii na fataane. am sëñ Sadio. waaw gone yi nekk ci daara yi ay dab. da leen di fox. day wax fii ci bàcc na bul fàtte ndabul daw. ndabul daw te noonu ko fox. <laughs> te noonu ko fox. sëñ Sadio la sëñ Sadio la yow mii moo la dal ci. waaw waaw waaye nag bul fàtte ne sama sama maanaam daa ko war a mel ni xaw a mel ni xamu dara te xam dara. xam nga moom nga ñu. xam nga ay waxam. man ju'ila nuura al-kawni أحمدنا المختار قاد للبشرى ويمنه على حياتي النسر كرامتي قد يدي وجادا الغد لي بما حوى الإنجادا كرامتي قط يدي وجادا الخط لي بما حوى الإنجادا ثبت للإيمان والإسلام ثبت للإحسان لا ألام وردم ربي من لعن لي حفر ومن قلأ ومن وشى ومن كفر هدم باق لا يدال هادما بنا عدوي لا يزال نادما محمد صلى عليه الله waaw jël bu ma rek yàlla def ko. yàlla def ko. amiin amiin amiin day bis bu tegu waaw lépp xaj na ci. alhamdulilah bis ko baax. waaw sëñ moo doon bis bi moom gën a ci bisam. waaw waaw bis bu gën ci bisam moom loolu muy ñëpp. moo ko waxoon. moo tax it muy mel nii waaw dafa jàpp yow dafa am

jaadali alwahaabu fi urudi bi muxjili almuflixi fi alxaridi yansajimu albayaan walbadiu lima ilaya aqaadahu albadiu yansajimu albayaan walbadiu lima ilaya aqaadahu albadiu wasala lilmantiq walmaani ما الوصول فارد المعين